mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen andax ñun si rajo Rewmi FM tey ñu am ci mbégte lool di ci dalal rek ki nga xam ni moom moo di Boubacar Traoré nekk président mouvement ndaw émergence ci commune bu Jaxaay tey ñu am mbégte lool di ko fi dalal ci émission gox bi Boubacar Traoré ñu ngi lay nuyu di ngi lay sant bu baax di la gërëm ci ni ñu nangulee invitation bi. voilà donc bisimilah rahmaani rahim. Euh, monsieur Dramé maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant. Mhm. Euh, di rafetlu aussi invitation bi. Mhm. di nuyu tout le personnel u Rewmi FM. 97.5. Mhm. di nuyu aussi les auditeurs et auditrices. Euh, di nuyu toute la commune de Jaxaay yi déglu. di nuyu aussi son excellence le président de la République Macky Sall. maa ngi lay gërëm di la sant. jërëjëf comme Boubacar Traoré ni nga ko waxee tey actualité bi li ciy njëkk mooy li nga xam ne moom moo jëm ci vote bi code pénal ak code procédure pénale bi nga xam ni nag voté nañ ko ca pencum ndaw réew mi ci àjjuma bi ñu weesu euh, gis nañ la fa am ñi nga xam ni moom moo jëm ci code pénal bi ci li nga xam ni nag moom moo jëm ci soixante-dix euh, députés yoo xam ne itam voté nañ ko ñoom ñoo wax oui trente-huit yoo xam ne nag ñoom ñoo no zéro abstention ba tax na rek projet bi mujj jàll code procédure pénale bi li ñuy def ñu defal ko sans débat tey lan mooy si sa impression bu njëkk ginnaaw rek ba ñu yeesalaatee ñaari côte yooyu. voilà donc je pense que loolu aussi euh, aju na euh, maanaam le ministère de la justice. Mhm. di ci communiquer lu am solo. Mhm. parce que je pense que askan wi. Mhm. information capitale bi nu war a am si projet boobu amuñu ko. parce que je pense démb rek li samay ay jeunes di ma doon laajte. Mm-hmm. ne ma monsieur le maire waa léegi projet de loi bi ñu def à l'Assemblée nationale léegi dañu bëgg interdire marche. Mm-hmm. may la non du noonu la demee. Mm-hmm. en réalité le projet de euh, le projet de loi. du code euh, pénal du code pénal. code de code de di pénale. en réalité il faut ñu xam ne depuis la ko leen ko initié. depuis deux mille seize. leen ko nag mu nekk loo xamante dafa am dañ si doon defaat yenn mhm. réglage yi ak yenn complémentarité yi mhm. moo tax ñu andiwaat ko révisé waat ko en deux mille mhm. en mille vingt et un vous pourquoi parce que xam nga yàgg nañu autoriser Sénégal mars te à tout un chacun képp koo xamante ne am na lu la métti mun nga élaborer sa benn déclaration demande de mars l'autorité moo approuvé jox la autorisation ou pas n'est-ce pas mais li ñu yóbbu démb assemblée dañu am ay paramètres cest dafa mel ni yow par exemple li tax ñu dugg ñu si bëri da ngeen ne terroriste mi lañ wax. Mhm. mais dafa am lu ko provoqué. Mhm. xam nga tey monsieur Dramé. Mhm. ñun xam ne léegi Sénégal benn format manifestation bi fi am léegi. mooy loolu nekkatul léegi. li nga xamante ni moom leen xamoon Sénégal bu njëkk ba. Sénégal bu Senghor ba du loolu leen xamoon. Sénégal bu Abdou Diouf du loolu leen xamoon. Sénégal bu Abdoulaye Wade du loolu leen xamoon. xam nga mooy lan. mooy lan te yéen ngeen war def manifestation. am leen métti c'est bien boo ngeen def une déclaration. dem marche pacifiquement def ko kenn ku nekk yóbbu ñibbi seen kër. Mhm. mais li ñu gis léegi dafa ëpp dayoo. loolu acte terrorisme la quoi. Mhm. cest à dafay mel ni yow monsieur Dramé nga dëkk ak nit par exemple nga yor ay nombo tànk politique. nit ñi élaborer def benn demande de ñu autoriser leen ou ñu dem marche wax la leen métti mais dañuy ëllëg ko di sànni xeer wala di toj ay këru jàmbur loolu ay acte terroriste la man dégg naa am na benn maire boo xam ne dafa nekk en dehors Dakar benn maire boo xamante ni non seulement waxuma la mairie ba rek mais dañu dem attaquer benn école privée bu mu am. mooy maire bu commune bi Medina Wandifa. voilà. Mhm. kon ça veut dire nettement que ne léegi yow man bu fekkee ne man sama commune am naa lu ma métti damay élaborer suma benn demande d' de marche adresse ko le sous préfet. Mhm. su ma ko autorisé ma def ko pacifiquement wax la ma métti yëkkati samay pancarte bu jeexee ma dem ñibbi. Mhm. mais léegi. lu tax mais dañ ne da ngeen indi loi bi ngir teg ko. ngir képp koo xam ne mu ngi fi dox doxub ñaxtu mel ni lu xaw a wàññi ñoom nag loolu la ñuy ñaawlu ndax nee nañ jàpp nañ ni mars fii kenn waru ko fi aaye. non aayewul mars. il faut mu clair wala jàpp ngeen ni euh, projet yi ñu ñëwee yéen expliqué woo leen ko askan wi. waaw moo tax ma ne la ministère de de de la justice et en réalité le gouvernement dañu war a communiquer ci askan wi. dem si euh, euh, télévision yi si mm. rajo yi expliquer en réalité askan wi ne leen lii projet de loi bi ñu fi andi nii ça ne date pas d'aujourd'hui mm-hmm. c'est depuis 2016 mm-hmm. la ñëwoon donc li nu fi modifié tuuti rek mooy acte terrorisme yi ñu si yokkaat mm-hmm. mais lii am na fi bien avant maintenant xam nga man lu ma mënta d'accord mooy man su ma jógee pour mars ma xam ne am naa lu ma métti mun naa ko def pacifiquement mais lakk beeg attaquer les institutions bu may dégg le président Macky Sall wax ëmat yi fi amoon mars yal na bu mu fi amaat ñuy dem ba di attaquer ay gendarmerie tu te rends des gens yu jug di dem attaquer la de gendarmerie tey jii boo attaquer benn brigade de la gendarmerie nga attaquer ko arme ya nekk fa lépp nekk fa ñooñu par preuve de prudence ñoom tiire wuñ léegi bu fekkee ne askan yu dugg neen fa jël seen armes yóbbu ko sàcc ko kon loolu fan lay fan la ñuy mujj c'est très important li ñuy wax nii parce que lii du pour parce que Macky Sall day demaa ah mandaam day jeex mu dem. bu demee dafay am ñeneen ñu fi nekk. kon lii ni def nii loi yi ñuy voté nii à l'Assemblée nationale c'est pour protéger askan yi protéger bien yi askan yi. Mhm. looloo looloo ko tax a jug mais du. Mhm. très interdiction marche autre chose non. nga bu baax ci projet yi nga xam ne jàllale nañ ko ci Assemblée nationale. non seulement ànd naa si. Mhm. aussi damay féliciter les députés. c'est ah, vrai que ah député député yi toog di xuj euh, daggasante ci biir assemblée nationale. waaw mais loolu assemblée nationale yëpp la am man seet naa benn Euh, télévision benn dëkk boo xamante ne référence la si wàllum démocratie am na fa ñooñu dañuy yëg si kaw taal bi di xeex. xam nga mais fu luy mujj rek mooy leen fa yóbbu du dëgg. ku nekk boo xamee la la fa yóbbu di ko def ci transparence doo si def benn détail yoo xamante c'est des détails inutiles mhm. di mitulu aussi incident bi am foofu ci diggante euh, le président Ousmane Sonko parce que man quoi qu'il advienne dama koy jox cër mhm. ak Merry Sylla l'honorable député Merry Sylla mhm. na ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay ñoo bokk suñu Sénégal kon na gën a rafet rek. Mhm. man moom vraiment loolu méttiwul naa ko te dañuy jéggul fop mhm. te le président kenn loolu. Mhm. Ousmane Sonko aussi du nitu loolu kon nañu def jàmm ak salaam. Sénégal si loolu leen xaj. ok mais ba tey yaa ngi doon wax ci de est-ce que waruñu mën a changer tey euh, débat ci assemblée nationale débat bi gën a mën a yëkkati parce que gis nañ nit ñi nga xam ne bu ñu jëlee kàddu dañuy teg ay yi nga xam ne mën nañ ko mën nañ ko mën a méngale mais tey lu neex waa ji nguur gi rek ñu wax ko ni ñoom loolu la ñuy wax loi bëgg a jàll rek. ngir xool li neex Macky Sall est-ce que waruñu xoolaat débat bi itam. non non mais xam nga nguur bi comme ni ma wax nii Sénégal nous avons le pouvoir exécutif le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Mhm. bu ñu fàtte ne exécutif bi mooy tànn législatif bi. loolu moom il faut ñu xam ko. Mhm. c'est-à-dire le président mooy choisir ñi nga xamante ne ñooy dem assemblée nationale. Mhm. maintenant nag fu may lancer un appel sur le président Macky Sall mooy. Sénégal dañoo amoon yaakaar ci onzième législature bi. mooy ñaar le président Macky Sall bés bu ñu demaat élection pré euh, élection législative. Mhm. ñu fexe ba dugal ndaw ñi. Mhm. dafa am solo parce que réew mi ndaw ñi si loxo ndaw ñi la war a mujj. Mhm. certes mag ñi kenn mun leen disqualifier mais nag ndaw c'est très important ndaw ñi ñu teel leen responsabiliser. pour que ëllëg ñu xam. Ah, nan la ñuy tenir les débats. mu nekk des débats sains. yoo xamante ni du am xëccoo rek te dinañ xam ne fii képp koo xamante wax nga mhm. sa wax dina am continue boo xamante ne mhm. nguur yi mun na si tirer ay mhm. conclusion ci loolu sax am na ndaw ñi nga xam ne ñoom ñoo regroupé ci benn euh, kuréel gu ñuy wax PIPA ñoom itam ñu ngi dox tànk yooyu fanweeri euh, pour cent trente pour cent ci li nga xam ne moom moo jëm ci ndaw ñi ngir ñu dem nekk ci pencum ndaw réew mi loolu la ñuy xeex kon donc danga jàpp ni ndaw ñi am na place bu am solo bu nuy occupé bu ñu gisee rek keroog message bi nga xam ni moo de ki nga xam ne moo de Soda Marème wax na ko honorable député activité bi nga xam ni moom moo nekk Oser l'avenir donc day incité rek ni woon ni kon ndaw ñi am na place bu ñu war a jouer ci biir assemblée nationale. mais effectivement mais xoolal la preuve année que a euh, la dame. Mariam Soda Ndiaye Mariam Soda et Yaya mhm. euh, mhm. Mhm. mais ñooñu ay c'est des députés exemplaires à l'Assemblée nationale même y compris le vice-président Abdou euh, Abdou Mbow c'est des députés exemplaires si biir Assemblée nationale koo si dégg mu wax ba nga naw ko ñoom dugul si ay débat kuréel débat que lu souvent ñu koy dugg mooy troisième âge bi moo tax nag ñuy lancer un appel waxuma la et puis man je ne parle même pas de l'Assemblée nationale rek même les mairies. Mm-hmm. parce que il est temps que ñu jël dëkk bi jeunesse bi am si Pastef bu am solo parce que ñun ñoo am actif ñoo mun a dem ñoo mun a ñëw mhm. xam nga mag ñi moom ku si clim bi ëpp rek gaan nga tayal boo waroon dem réunion xa nga délégué sa adjoint au maire wala nga délégué sa sa keneen mu dem représenté donc dama bëgg mhm. poste de responsabilité yu nekk si réew mi mhm. ñu mun si sédd ñu mun si jox jeunesse bi am compétence na ba pare nekk une jeunesse exemplaire man loolu je suis pour pour ce projet à ce que ñu bàyyi leen xel bu baax a baax ci beneen wàllu itam tournée la jógee njiitu réew mi ku nekk moom sax mu duppee ko tournée économique euh, ne tournée économique la euh, ñeneen ñi ñu ne tournée euh, politique. Mhm. lan moo si sa gis-gis da jàpp ni campagne la leen di defal yéen. <laughs> non non pas du monsieur Dramé xam nga entre tournée politique ak tournée économique. ça ça va être très difficile pour nga def la comparaison des deux trucs parce que ñoo ànd ñoo ànd ce que j'ai l'habitude de dire àdduna lépp politique la mais dafa am politique économique et sociale. waaye bu bëggee def tournée économique mun na leen wax militants yi ne leen mun ngeen toog ngeen xaar. non mais xam nga ko am sa président de la république nga jox ko cinquante pour cent si élection présidentielle yi mujj. Mhm. bu jugee na maa nga dem Matam Matam képp ko doon toog di nga jug dem tartu ko. parce que ki ñu tertu mooy ki lépp mooy ki Sénégal dénk réew mi kon c'est tout à fait normal ñu dem tertu ji ko maintenant nag pour nga def comparaison entre. tournée politique ak tournée économique ça va être très difficile vous savez pourquoi mhm. parce que moment bi président di def tournée bi dafa nekk ay moment bu am enjeu électoral tey jii imagine toi nga ñëw lu mel ni mhm. Fatick mais boo ñëwee ku mel ni lu mel ni Fatick mhm. suma xarit suma directeur général Biram fay day def mobilisation bu extraordinaire mais réserve que le président de la République waaw est-ce que du keneen tamit du def foofu mobilisation mais lu dans tout ça si benn saako koy sokki mooy le président Benno Bokk Yaakaar le président Macky Sall moo tax may la moment bi bi mu tombeel moo moo mhm. te nag président dafa normal dafa yoon mu dem defi tournée vous savez pourquoi vous rappelez très bien mhm. en 2000 si je ne vers yooyu mhm. defoon na fi conseil des ministres décentralisé moo amoon chaque raison lu mu fa diggoon. Mhm. kon nag bu loon waaye sa bu bu fekkee kilifa gi dafa joxe institution. Mhm. mais war na aaju demaat mu demaat xool ndax diggé yam joxe woon am na appliqué nañ ko fan la toll si pourcentage. yemb na yëpp li mu waxoon. ci yenn régions yi non du lépp mooy yemb mais fu fi dem fu nekk. Mhm. exécuté nañ ko ay autour de cent pour cent wala quatre pour cent. kon mu ne leen am na suivi évaluation kon président fu mu dem rek day def suivi évaluation xool lan moo manqué fan leen toll ak lan moo si topp. Mhm. loolu c'est très important. mais naka ngay mën a comprendre itam ñu defar benn centre de santé boo xam ne wala hôpital bu mag ci diwaanu Kaffrine accident am ñu indi leen ci diwaanu Dakar. waaw mais parce que il faut gars yi def mun a ràññee inauguration ak lu opérationnel deux la. ah boo demee ba inauguré kay mën nga. mën na a jox nañ la clé entreprise ak entreprise seen contrat jeex na comme ça soo liggéey sant benn entreprise mu liggéey pare bu pare da ngay ñëw réceptionné boo réceptionné nag jour boobu lañ lay remettre les clés la jox naa la li nga ma santoon pare nañ suñ contrat maintenant nag yow à ton niveau nga xool sa administration nan ngay affecté les médecins et sages-femmes ainsi de suite bu ko defee hôpital mun a opérationnel. Mhm. kon daal c'est normal président di dem di saytu ay réalisations yu mu def ci àll bi. looloo tax ñun ñoo ngi koy ñun suñu plateforme bi ñuy liggéey nii ñoo ngi koy xaar. depuis presque un mois. ñoo ngi siy réunion di teg ay stratégie parce que ñun dañu bëgg le président Macky la ñëw à Jaxaay. Mhm. c' est très important. parce que c' ngeen bëgg mu ñëw Jaxaay. xam nga président Macky Sall dafa def loo ne dafa aju Sénégal yëpp xam ko. mooy. le président Macky Sall may na commune bu Jaxaay douze millions. douze milliards du mhm. xam nga leen may douze milliards. nan la ko pàcc pàccale. parce que lu mu def global la. cest à xam nga ñun Jaxaay commune bi nu dëkk. Mhm. projet bu Ablaye Wade la woon. projet bi Abdoulaye dafa amoon inondation yi vous vous rappelez très bien. Mhm. ñu waroon si investir cinquante deux milliards. Mhm. ñu reporté woon en deux mille vers les deux mille sept deux mille huit yooyu. Mhm. léegi nag dafa jëndoon foofu ay terrain. tabax ko terrain bu nekk ñu waroon ko évoluer quinze millions fukki millions ak juróom. léegi état jëloon en charge subventionné ko ne état moom mooy fay fukki millions ak benn. donc kër gu dëkk perte dafay bu ne da nga fay ñeenti millions. le président Macky bi mu toogee mu ne am ku toog ak moom ñu koy gërëm mooy Khady Diop. ñu wax ko ko parce que loolu dafa nekkoon doléance wax na ne ñun ñëpp ñoo ko doon. Mhm. xeex kee nag moo am sans toog ak moom bi mu toogee moom wax ko ko président ne leen mayee naa kër yëpp bu kenn fayati parce que nag. social comme damay jël ay kër di ko joxe gis naa fii kër yi kon may naa ko. Mhm. ça veut dire que yow boo jëlee million millions multiplié par trois mille kër ça te donne douze milliards. Mhm. léegi nag ñun suñuy li ñuy dox mooy ku def lu rëy am lu rëy dañu bëgg le président Macky Sall. mun na ñëw jaxaay ñu pentel ko tout le département de Kër Massar génn si. Mhm. pour ñu defal ko benn sym euh, euh, ngandi manifestation. Mhm. mu defal ñu benn remise symbolique titre de propriété pour les habitants de la commune de. loolu fu mu toll tey yooyu ngay wax ci réalisation Macky Sall la bokk ak li nga xam ne moo jëm ci logement yooyu noonu léegi naka la ñu mën a xoolee méngale ko ba mu nga la mun a ñoŋ tey. waaw loolu c'est vrai que ñoo ngi siy dox ñoo ngi siy dox ñoo ngi siy def ay demandes. c'est-à-dire entre nous dañu bëgg a ay partenariats yoo xamante ne ñoo koy organiser par mhm. suñ ko organiser ñoo ngi xaar nag parce que bind nañ ay requête envoyé ko son excellence le président Macky Sall. Mhm. bind nañ ay requête pour à que ñu toog waxtaan ak moom si projet boobu. Mhm. pour que mu mun a ñëw commune de Jaxaay. Euh, xool la nga xamante ne nii liñ ko proposé remise symbolique bi. mu ñëw defal ñu ko si biir commune de Jaxaay parce que aussi am nañ fa suñ centre de santé bu nekk niveau 3 centre de sante boo xam ne buñ ko eggali woon kon dama ne Kër Massar Ñakurab Tivaouane Peulh Sangalkam ñëpp kenn dootul demati Rufisque jaxaay ngay bëgg di fajoo suñ centre de santé baa nga fa ay pëftan moo fa nekk ay jànnu ñuy dund si biir sant hmm. de santé boo xamante ne defar nañ lépp loolu ñaata hmm. finition équipement moo des ba léegi mais je sais que le président il n'est pas au courant mais bu ko yëgoon réglé na ko toute la population boo xamante ne na cinquante deux mille âmes fay dund sa benn poste de santé bu ndaw leen nekk le président Issa Camara nekk fa ak ñoom yi àndal di léegi ñoom Mademba Ndiaye kon nag foofu aussi dañu benn cri de cœur la boo xamante en tant que un authentique quelqu'un boo xamante depuis 2009 gëm nga le président su ma gisee loolu dafay nekk sama gàcce parce que l'état c'est une continuité moo tax loolu bëgg nañ ci waxtaan ak président parce que dafa am information ne président amu ko mhm. moo tax ñun suñu devoir maintenant suñu amee occasion toog ak le président nañ ko expliquer li fi nga xamante foofu la war a laal mhm. pour lépp mën a sotti da nga jàpp loolu moo tag tey ci commune bi boobu mën a jug euh, may boppam doole ngeen mu a ko utiliser jumtuwaay boobu waaw parce que centre de santé bi buñ ko bu nekkoon lu opérationnel non seulement dëkk bi dina des désenclavé wu ba pare dañu am problème mu voir yi aussi parce que Promoville c'est vrai que may nañu deux kilomètres quatre cent mais cité gendarmerie boo fa demee actuellement ils ont des problèmes. Mhm. éclairage public à Jaxaay et cité gendarmerie et Parcelles Assainies. Mhm. amul problème éclairage cest à loolu moom c'est une continuité. Mhm. na bu beneen élection mairie ñëwee maire ba fa nekk am na loo xamante ne c'est du ressort de l'État. l'autre nag collectivité moo koy liggéey. ok. mbokk yi tey Boubacar Traoré la ñuy daal di dalal ci émission gox bi moom nag moom mooy jiite rek euh, mouvement ndaw yi nga xam ni ñoom ñooy euh, euh, bëgg rek émergence ci commune bu Jaxaay parcelle alors ci commune bu Jaxaay googu nag la ñuy ñëw waxtaanee commune bu Jaxaay est-ce que mun nga ñu defal taarixu commune bi. waaw bon commune bi c'est vrai que commune bi taarix bi moom def ko moom dina yomb trop parce que commune de Jaxaay. moo ngi bokkoon au temps si département de Rufisque. Mhm. léegi nag bi le président son excellence érigé Kër Massar département. Mhm. léegi ñu décroché commune de Jaxaay yóbbu ko si euh, département de Kër Massar. Mhm. maintenant commune de Jaxaay nag li ngay dégg plan Jaxaay mu ngi choqué ko si biir Parcelles Assainies. parce que Parcelles Assainies ça faisait seize mille. unité seize mille parcelles la woon mu nekkoon ñaata unité un ba vingt sept unité léegi nag vingt sept unités yi dañ see tekki euh, li nga xamante mooy trois mille maisons yi moom mooy plan jaxaay bi maintenant bu fekk fa cité gendarmerie bi nga xamante ne boobu coopérative d'habitat des gendarmes la woon mhm. retraité des mhm. gendarmes ñëw nekkoon en activité bon mu nekkoon aussi loolu moo composé la commune de Jaxaay mhm. ki nga xamante ne moo ñu jege woon te ñun actuellement ñu koy méttul trop bokkul si ñun mooy lébu gi te lébu gi impérativement nous nous allons nous battre à que lébu gi ñëwaat a Jaxaay ah, parce que ah xeexee non parce que xam nga nu ñu koy xeexee mooy du duñ ko xeex xeexu mbedd parce que dafa am loo xamante état daf ñu ko may foofu la ñuy dem ñun am nañ ay droits et prérogatives yoo xamante war nañ mën a attaquer le découpage le décret de découpage mhm. parce que ay na loo xamante état maîtriser ko xëy ñun bu ñu ko leeralee état à ce lu mel ni. Mhm. lébu gi ñu boole ko si ñun. parce mhm. que ñun bu ñu pertee ñàkku rab fi nga xamante maire dëkk bokkatul si ñun. kon nag bu ñu jëlee léeg bu ñu jëlee léeg war nañu jox leneen quoi. loolu moom je pense que débat boo xam dañ koy te du bëri ay coow quoi. léegi de manière plus claire est-ce que yow d'accord nga ci décopage bu yees bi nga xam ni euh, président de la république def na ko ci ndigalu ki nga xam ne moo di jëriñ bu ñu dénk wàllu wi ni mel mu di Omar Gueye li ni mel indi woon na euh, xaajaloo yu bari ca commune bu jaxaay ak yeneen commune waaye yow comme yaa fi toog tey dëkk ca commune bu jaxaay googu euh, ban appréciation ngay def ci décopage bi. avantage commune de Jaxaay hmm, ci naka. parce que commune de Jaxaay képp ku ko xam-xam ne mu ngi bokkoon si arrondissement de Bambilor. Hmm. léegi nag ñun Jaxaay arrondissement leen. damay dégg tantôt nit ñi di véhiculer information ne non ñun amatul mairie wala est-ce que mairie baa ngi fi nekk ba léegi si am nañ mairie ba léegi. Hmm. mais plus que ça léegi arrondissement leen. parce que Kër Massar département de Kër Massar dañ ko ériger à trois arrondissement entre Yëmbal Nord Yëmbal Sud am na arrondissement. entre Malika et Kër Massar est arrondissement la. Mhm. léegi entre Jaxaay et Kër Massar sud Jaxaay mooy arrondissement bi. kon loolu avancement la avantage la. Mhm. maintenant nag par contre dagg-dagg boo seen des fois mu am fu muy nàccee tuuti fu muy méttee. Mhm. ñun fi nga xamante ne moo nekk suñ solos dëgg. c'est vrai que euh, population bu ñàkkurat ñoom ñoo ne ñoom dañoo bëgg a dem Tivaouane Peulh. population bu Daaru bu une partie ñoom ñoo dañoo bëgg a des Sangalkam. donc nag ñun aussi population bu lébu gi. ñoo ne ñoom dañoo bëgg a bokk jaxaay. kon nag moo tax may la avantage commune de Jaxaay la mu jugee département de Rufisque mhm. dem département de Kër Massar et mhm. bu ñu demee département de Kër Massar nous allons nous imposer là-bas parce que tout simplement commune bu am doole bu am expérience la mhm. naka ngeen koy euh, euh, mën a amalee li ni mel xanaa waxtaan jib na laata euh, découpage bi di ñëw parce que dalal naa fi ki nga xam ne mooy premier adjoint bu maire bu commune bu Jaxaay jàpp na ni nee na waxtaan amul woon lépp nag politique moo ko lal moom dafa jàpp ni ministre Omar Gueye moo nekk ci ginnaaw mbir mel ngir faagaagal ay nit yi nga xam ne àndul ak moom loolu ngay tontu ci loolu. non non loolu man loolu avec tout le respect que je lui dois c'est un ami ah adjoint au maire ma koy nuyu de passage mais loolu man gëw ko parce que boo liiree projet de loi bi projet de découpage bi administratif bi. loolu dana ne population de tonton bi ñoo laajte ne dañ maanaam ñi nga xamante ñoo sànc dëkk ba ñoom ñoo ne dañoo bëgg a dellu des fa ñu des fa ñu nekkoon maanaam lu mel ni daaru xam nga tey jii boo demee population daaru cubb hmm. daaru cubb boo demee population foo dem hmm. bu projet amee dina am ñu wax oui am ñu wax non hmm. parce que question d'intérêt la dafay am ñoo xam ne seen entre bu nekkee côté bi dañuy ne oui am ñoo xam ne seen intérêt bu fa nekkul dañuy ne non et ce et ce qui s'est passé à Niakorab pareil Niakorab population bi ñoo oote sa penc ma penc ma oo ndey ji jaraaf oo les chefs de village oo l'imam ñoom ñu ne d'accord nen pour dem Tivaouane Peulh parce que suñuy tool xa Tivaouane Peulh la nekk mhm. au moment où même daaru ci bu ñun si boppam mhm. population bi une parti ñoo mhm. def délégation dem seeti le ministre Oumar Gueye ne ko ñoom d'accord nen pour bokk Sangalkam ba jox fa seen i doléance sax ne dañu bëgg ku leen eggali seen i seen seen maternité beek seen centre de santé beeg seen poste de santé du moins kon ça veut dire que ne foo dem rek du gis nga àdduna lépp politique lal mais lii du politique de xeex nit wala xeex kenn il fallait que Euh, euh, département bi am il fallait que am ñu dem am ñu toog ñun nag suñu doon suyee moo doon ñu toog mais nag bu fekkee ne génn na lii la président def ko ñun du ñu def lu dul appliqué. Mhm. par contre nee naa la ñoom bi nga population bi nga xam na nan nan dañ waa waa ñàkkurab neen bëgg nañ waa kii lébu gi. Mhm. neen bëgg nañ toog lébu gi lan lébu gi bokk sàngal kam mais ñoom population lébu gi nee dañoo bëgg bokk ak jaxaay loolu ñun lu ñu nekk direct la la. Mhm. c'est comme ça. lu ñuy nekk di régler la 88 le 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 kaskan wi nag yéen itam mu ngeen dugg joxe seen xalaat ci wàll wi ni mel waa léegi euh, ginnaaw li ni mel jëmmal nañ ko léegi lan moo war a soppeeku léegi ci commune ba. di a ci commune ba ginnaaw bu ñu indee li nga xam ni moom moo jëm. ci li nga xam ni moom moo jëm ci projet découpage administratif bi nga xam ni sumb nañ ko léegi lan moo fa war a soppeeku. bon li fa war a soppeeku bëri na parce que li fa war a soppeeku ak a bëri. Mhm. xam nga d' abord dañu xaw a dërmal si ay élection d' abord. Mhm. parce que actuellement commune dafay stagné. Mhm. dafa toog. commune bi demul dikkul. comprends nga. commune bi fi mu toll nii dafa stagné dafa demul dikkul. parce que tout simplement ñoo ngi waat ay élection à six mois donc d'ici six mois ñu dem mais maintenant nag équipe bu munti ñëw ëllëg il faut que mu équipe bu mun a élaborer am benn projet de développement local. Mhm. pour gox bi mun a jugee le plan A dem si le plan B. parce que kër mi fi mu nekk nii dara doxul. tout est mhm. lépp a taxaw. Mhm. te loolu dama si profité lancer un appel le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr. commune bu amul ambulance dafa garaaw. dinañ ñëw dinañ ñëw ci mairie bi léegi léegi léegi ñu comme wax nga ko ñu anticiper ko léegi yow nga ne commune bi lu bëri war nañ ko fa defaraat ndax équipe moo fa nekk depuis 2014 ba tey ñoom ñoo fa nekk xëy na am nañ ay programme léegi dañ ciy jël pàcc ci wàllum njàng ak njàngale bi li nga xam ne moo jëm ci wàllum éducation tey lan nga gis loo xam ne def nañ ko fa ci commune ba waaw donc man li ma gis ñu def ko si commune bi. waxuma ay réalisation Macky Sall de nga wax rek commune bi tey lan lañ def foofu. waaw waaw xam nga tey jii foofu dinaa si yomb a parce que tout simplement. Mhm. présidente commission bi madame ma Bari la ah euh, ñu koy ooyee madame Coulibaly. conseiller nga. Euh, non je suis pas conseiller man tête de liste là euh, en 2014. Mhm. j'avais ma propre liste. Mhm. léegi feuille de départ bi y avait sept per sept listes. coalition. Mhm. ma jël troisième am quatre conseils municipaux. Mhm. mairie bu jaxaay boo fa demee am na quatre conseils municipaux yoo xam ne sama liste lañ génnee vision de Rufisque. est-ce que ñooñu demuñu feneen. waaw mais loolu ak politique a ànd mais xam nga lu xam nga xam nga lu tax ñuy sant yàlla. Mhm. ah mooy. <laughs> kon ñooñu daal lañ la war a nomba quoi. non non non. <laughs> léegi ci éducation ci wàllum éducation. mais sama leen moo tax bu ñu wax dara si ñoom quoi. voilà <laughs> tey ci wàllum nga a wax tey ci commune bi am na ay pas yu mu ci def. non moo tax may la ki koy jiite li muy def dafa am ànd ak transparent parce que day oo ñëpp tout les responsables politiques convier leen pour que ñoo fekkee ko. Mhm. je sais que mairie bi wàllum éducation def na si ay pas yu am solo. Mhm. man gis naa ay élèves yoo xamante nii amoon noonu possibilité kon ne seen jàng mairie bi. eggali ko fay leen fayal leen ñu eggali seen jàng. Mhm. ay gis naa au départ aussi l'amicale des élèves étudiants de la commune de Jaxaay ñu jëloon leen en charge mais loolu départ bi la. taxawaay léegi tey. tey moom continué loolu amatul parce que élèves étudiants commune de Jaxaay amuñu mhm. logement fu ñu dëkk à mhm. loolu moom kon la ah, bu njëkkoon ànd ngeen ci est-ce que taxaw alerté taxaw nga alerté ko. man si laa dëkk man dama dem ba gars yi jàppee ma un opposant te man je suis pas un opposant man xam nga lan la man dama bëgg wax naa la ne mairie bi def nañ ay jéego yu am solo si wàllum éducation. Mhm. def nañ ay jéego yu am solo si wàllum social. Mhm. mais dafa am en terme d'infrastructure am na yu ñu ko parce que dem naa ñoom ñi si bopp léegi lu des kon. non li des dafa bëri xam nga yow déglu ma mairie bi ñaata at leen fa nekk sept ans xaw ma huit ans 2014 mhm. waroon na gën a mën a bar. parce que état lépp loo seen gis nga surtout collectivité locale boo ko yoree dafa am luy doxal collectivité locale. lan yow il faut que yow nga mun a privilégier. partenariat public privé mun na am ay partenaire au di dem bitim réew di fa uti ay partenaire di jumale ay collectivités locale yi nga xamante nii yenn yi buñ ko soxloolu dañ la koy jox mën nañ lañ jëriñ mais ñun d'abord dama la wax loolu amuñu loolu à la mairie de Jaxaay ñun suñu nous n'avons pas de service technique à la mairie de Jaxaay te loolu moo nekk blocage bi nga xam wax naa leen ko depuis fort wax naa leen ko nee tant que les conseils municipaux et le maire dafa nekk direct xam leen ne du ngeen liggéey parce que bu ñu fàtte ne l'État a transféré neuf domaines neuf de compétence aux collectivités territoriales. Mhm. et chaque domaine de compétence dafa war a am benn service technique. ça montre nettement que ne képp ku nekk président de commission da nga war a am division technique bi nga xam ne moom ngay jox sa rapport. Mhm. maintenant division technique boobu moom à son niveau moom mooy collaborer def benn séance de travail avec le secrétaire municipal maintenant c'est le maire en dernière position qui doit prendre la décision. exécuter. quand tu à la mairie de Jaxaay da ngay seen coggalum conseil ñuy rang la monsieur le maire ku ñëw wax même boo amee projet bu rafet xam boo ñëwee wax monsieur le maire nit la boo ñëwee wax mu ne la waaw nga dem après braf ñan ñi ñi fa am ay partenaire andi ko fa man lay wax si ambulance bi hmm. partenaire moo ko fa andi mais ki ñu may ambulance kooku mën nañu may leen ak leen mais il faut pour il faut savoir maanaam pour pérenniser waaw et puis et puis les relations parce que nit ki boo fekkee ne yow am nga partenariat ak benn ONG wala ak benn tel. Mhm. mais ça va yaa xayti da nga koy suivre. donc lan mooy vision mairie bi kon. amuñu vision. Ah. mairie bi mairie bi dañoo bloqué dafa mel ni ataraay autoraay bu dem ba ne këkk. ba raay bi draaya day ne këkk taxaw. 2014 ba tey. demuñu nee naa def nañ tuuti. mais bu buñ commencé def du eggale. bu ñu commencé ñun dañ na la mairie bi dama lay wax benn affaire. 2014 ba léegi ñun mairie ba ñoo ngay loué te am benn bayal boo xamante ne 600 mètres carrés uniquement pour la cons pour pour la construction mmh. de notre euh, euh, mairie mais pourquoi pas ñu dem gis le ministre des collectivités territoriales ne ko am neen bayal location bi dañoo sonn si location bi mu toll ñu ay voies et pour que ñu tabax suñu mairie moom laa lay wax ne la vision la même bu man fekkoon man maa nekk le maire je vous promets que à un an ñu ñu eggali centre de santé bi nekk a Jaxaay vous savez pourquoi parce que le ministre de la santé du ma ko may jàmm dama je vais lui mettre la pression pour que ñu eggali centre de santé bi cest à commune boo koy jiite rek il faut nga am vision ne man damaa bëgg a jëlee commune bi niveau A egg ko yóbbu ko niveau B. maintenant nag certes du ñàkk ay obstacle yu am mais obstacle nag da ngay am solution obstacle est égal à solution. kon maire bi maire bi dafa tële. non non non bi moom vraiment turam la uyoo quoi mu ngi tudd Mor. Sarr Ba te moor foo ko dégg baaxul moor mooy lu dee moor dootuma waxati si moom parce que jeexal na mandaam lu may sekk ak moom jàmm ak salaam parce que kilifa la jàmm ak salaam laay sekk ak moom fi mu toll nii li ñu nekk di xool mooy kan mooy nekk prochain maire à la commune de Jaxaay pour que mu nekk un maire visionnaire boo xam ne dafay liggéey te yàlla tax. Mhm. naw askan wi wàcce boppam askan wi gëm ko bugg ko. Mhm. loolu la ñuy dox. loolu dinañ ci ñëw ci wàllum voirie yi sànq dégg naa la nga ne voirie yi ci commune bi doxul euh, est-ce que ñu ngi ñu ngi def la war maire bi kon su ma la déggee mooy deful la war euh, nekkalul fa askan wi su ma la déggee daal. mais mais xam nga sànq maa lay voirie dañu am 4 kilomètres dëggal 2 kilomètres 400 la ñu. Mhm. Promoville may. Mhm. mais pour entreprise l' entreprise bi gagné woon marché bi. Mhm. xam nga yow man du ma ñëw fekk la sa dëkk état ne la may naa la deux kilomètres quatre cent waaye yow yaay xool sa dëkk yan voie ñoo nekk ay voie priorité fii nga xamante leer na ma tali bi bu jaaree fii dëkk bi dina désenclavé wu mhm. mais amul ta maliens yi danaa def foofu téeméeri étude leen def commune de Jaxaay ba pare ñoo tracé ñu fa benn tali bu oyof tali bu nooy ba pare tali boo xamante ne canalisation dañ ko def canalisation à ciel à ciel ouvert monsieur la nekk à Jaxaay bu tawee ñun inondation bi daf ñuy sonal démb la taw tali boo demee suuf si nam suuf si commencé naa nëbbu tali oto yaa ngay fiir xale yi parce que amuñu doodaan ay doodaan nit ñaay obligé di corriger pour di jënd ji ay corde pour créer ay doodaan boo demee à jaxaay man maa la ko dama ne la parce que l'entreprise malien bi doon exécuter les travaux dafa waroon am service technique à la mairie boo xam ne mooy suivre di contrôler les travaux mais amul l'entreprise malien ñoom ñoo ñoo exécuter suñuy travaux moom baax dem du ñu yëgal xal la mairie à moins que ñu am ay réunion séance de travail mais la mairie dafa waroon recruter un technicien boo xamante mooy suivre les travaux yi bu ko respecté wul mu aviser ko le maire le maire ou les autorités de de l'AGEROUTE kon moom defar na euh, voirie yi ba pare RSE defaru leen dara dafa leen dafa pare rek dem. defar na tali trottoir yi xa eggul boo demee 12B côté 12B noonu trottoir bi eggul foofu nga dem côté Jaxaay 2 trottoir bi a ndox mi bu tawee xam nga ñoom nan lañ canaliser ndox mi mhm. bu ndox mi tawee day topp tali bi te ñun ñëpp xam ne ndox dafa soxor si tali day dagg tali kon ndox mi bu tawee day jopp tali bi di rogaat di rogaat léegi foo xamante ne am na fa bascule rek day wàcc ci koñ yi mhm. dem ba jaxaay 1 fi mu boo demee jaxaay 1 11 a dañuy bu tawee rek dañuy inondé parce que foofu leen versé ndox mi ko mhm. kooku ban dëkk leen nekk te ñu waroon am ay canalisation xam ne dañ koy connecté ak ak ak ak euh, euh, tali bi nekk si en face Sénélec bi que y avait éclairage public zéro ñun nag si loolu lañuy dox soo ba ngoon daan na gis nga loolu mhm. ku ñu si mere nga mere ñu ku ñu si bëgg nga bëgguñu ñun transparence la dox mhm. li des gis nga nguur yàlla moo ko yor ñun leen wax parce que ñun li may wax ni yëpp bu fekkoon dama si nef leen loo xamante du dëgg kon askan yi den oto téléphone na ma lii du dëgg waaye dama ne je suis à l'aise parce que li may wax yëpp askan yi dañ koy dund parce que askan waa ngi may déglu mhm. léegi euh, am ngeen fa benn stade bi nga xam ne ñu ngi ko fay tabax Euh, tey ci euh, acte bi ngeen wax projet red redécoupage bi bu ñëwaatee dafa mel ni da ngeen ko nar a ñàkk tey euh, naka ngeen war a def tey stade bi mun a yegg ba mun ko jox ndaw ñi ak tey ba xam te xam nga yaa ngi wax sànq ba tey naan maire bi amul vision day maire bi est-ce que dëkk ba am na ressource itam yi nga xam ne mën na génne xaalis. waaw mais xam nga wax naa la ko dee naa la mairie boo demee ba ne damaa bëgg a nekk maire il faut nga nekk un il faut nga ne man samay ambition mooy bu ma bu ma amee lii parce que budget prévision la mhm. boo ne man sama prévision si année bi mooy temps boo ko exécuté à cent pour cent boo ko boo ko recouvrir à cent pour cent nga recouvrir au moins boo amee la moitié cinquante pour cent le mhm. reste nga ne naa ko utiliser mes partenaires au développement mhm. léegi yow loolu soo ko mun la am vision bu xam yow fi ngay jëlee xaalis na ngay defee ba exécuter say travaux kon su boobaa yow am ga blocage d' abord benn ngoog deuxième bi il faut que population de Jaxaay xam mhm. c'est important mhm. te loolu man je lance le sous-préfet de l'arrondissement de Bambilor mhm. devenu maintenant l'arrondissement de Sangalkam stade municipal bi nga xamante moo leen taxaw montage financier bi amul benn conseil municipal bu la ne lii mooy montage financier bi kon transparence amu fa non amul non seulement amul transparence non seulement lan fa waroon exécuter exécuté wuñ ko mais dama ne la monsieur Dramé ban man ban dëkk la nekk ñun Sénégal commune de Jaxaay moo am loo xam ne du n'importe quoi xam nga mooy lan. mooy stade boobu ngay wax. au départ conseil municipal dañoo délibéré cinq hectares moment bi ma la wax nii. Hmm. dañ ne ñoo ngi koy clôturer trois hectares la ñuy clôturer ak ak lu topp. te conseil municipal yu bëri ils ont ils ne sont pas au courant bu ñuy déli xaat délibération yi boo xamante ne trois hectares la parce que stade dañu si prévoir woon cinq hectares benn nga. Hmm. bi mooy. maa ngi lay wax léegi montant montant financier bi. Hmm. waa yow boo demee bay ne da nga jël stade municipal da nga ko war a lancer il faut nga lancer benn appel d'offre mhm. les entreprises mun a soumissionner ñu xool nag proposition entreprise yi maintenant bu ñu xoolee proposition am entreprise yi ñu xool commission technique bi toog bi gën ñu jox ko. Mhm. léegi loolu noonu amu fa. stade municipal amul lancé appel d'offre benn ngoog léegi montage financier bi nan la est-ce que l'entreprise moo koy financer sur fonds propres ou bien ce que c'est la mairie moo koy financer sur fonds propres. c'est très important population bi que ce que ça soit moi ou les conseils municipaux la majeure partie xamuñu ko. kon askan wi xamuñu lu xew ci. ñoom daal dañoo jékki-jékki rek gis benn entreprise daal ñëw di clôture tal clôture xamuñ xam comment ça se passe. def benn cérémonie parce que man lii moom li may wax nii maa ngi ko alerté jour ban ma invité si si si pose première pierre ñëw naa dem naa fekk naa pose première pierre bi. mu gis ñu def ay maquette affaire yooyu mooy mais léegi man c'est ça c'est pas mooy montage financier bi mooy lan. est-ce que c'est l'entreprise qui va financer ñu ñoo moom suñ suuf est-ce que l'entreprise moom mooy financer bu fekkee l'entreprise mooy koy financer terme de terme de contrat bi lan lay nekk ñun xam ne ne autoroute à xam ne li xew mhm. Eiffage dañ ne mooy financer gérer ko tant d'années xam nga xam nañ ko mhm. mais fee xamul loolu xamul ndax mairie bi mooy financer xamul ndax kee moo koy financer te loolu man citoyen mhm. conseil municipal kenn xamu ko kon ça veut dire que amul transparence léegi nag kii mun a arrêter loolu mooy le sous-préfet ou bien le ministre des collectivités territoriales ñoo mun a arrêté loolu ba ab population bi affaire bi leer nañ. yéen alerté ngeen ko. alerté neen léegi nag emplacement bi. Mhm. fi ne léegi ñàkkaroo la nekkoon léegi dafa war a dem Tivaouane Peulh. Mhm. il faut pas que yi lëreewu. réew mhm. acte trois de la décentralisation dafa permettre. li ñuy wax intercommunalité. boo taxaloo commune Tivaouane Peulh. commune Tivaouane Peulh am suuf yow amuloo suuf nga am loo soxla infrastructure. commune bu Tivaouane Peulh dina la ko jox bu ngeen waxtaanee ngeen nekk. ay partenariat maa ngi dégg tantôt ay man dégg ñuy wax ne ay suñ suñu cimetière day dem léegi Sangalkam mhm. pour di delluwaat si projet plan jaxaay bi mhm. waroon nañ si prévoir au départ cimetière amu si amu si amu si mhm. léegi nag bu ñu fekkee am na cimetière yu nekk à Daara Tioub loolu aussi dafa xat ñu ñaan aussi le nouveau maire bi nag ki nga xamante ne parce que Daara Tioub comme day bokk Sangalkam ñu ñaan le ministre Oumar Gueye li ñu wax intercommunalité parce que euh, Sangalkam am na ay cimetière mais cimetière bi nekk fii dafa tuuti mhm. am na ay tool yu nekk aux alentours ñu waxtaan ak borom tool yi dédommagé leen yokkaat cimetière parce que bakkan bu ñam dund ñam dee mhm. man dama gëm intercommunalité du am problème avec les autres d' autant plus que ka nekk Sangal euh, euh, Tivaouane Peulh xam nañ ko Papis Diop mhm. ka nekk Sangalkam c' est ministre Oumar Gueye kon on n'aura ce problème te jàpp nga ni solution di maire bi ëllëg ak parti bi kañ lay investir ëllëg ak kan mooy nekk ëllëg ba pare na mhm. nekk mhm. solo sa askan bi justement yow euh, su ma la déggee ngay wax dafa mel ni euh, toogu monsieur le maire boobu noonu ngay wax euh, Mor Ba boobu nga wax daa mel ni toogu boobu moo la intéressé ba fësal nga nga ni jongante yi ñuy jëm ci li nga xam ne moo jëm ci bokk moomeel yi daa nga samp sa nënd waa yow da nga samp sa nënd ci ban tour nga war a demee parce que d'autant plus que Macky Sall na ngeen déglu ko te yow nga bokk APR nga ne da ngay dem lan lu waral tey lan moom motiver sa candidature bi nga xam ni waxee nga ko lu ko motiver. waa xam nga Dramien may rafetlu si question boobu c'est très important parce que ñu bëri dañ ma koy laaj. Mhm. xam nga dama nekk ak samay nawle. te su ma nekkee samay nawle ñu bokk di campagne si euh, ñu bokk suñu parti coalition Benno Yaakaar. Mhm. kon sañuma di sorte proclamer ne candidat la mhm. pour l'instant sama candidature wax gu ma ci dara xam nga lu tax parce que ku jiital sa leader da nga koy déglu mhm. man le président Macky Sall moom laay nooyee lu mu wax lu laa wax lu mu waxul waxuma ko mhm. parce que le président dafa ne nañ ko déglu nañ ko déglu mais instant bi ma wax yow déclaré gu ma suma candidature dama bëgg ànd ak coalition Benno Bokk Yaakaar ñu ànd waxtaan suñ mënee liggéey ensemble ñu liggéey ensemble buñ mënta liggéey ensemble nag damay confirmer leen Amar waxoon dama am sama autonomie bopp parce que expérience laa si am 2014 candidat laa woon sans moyen sans rien ma dem élection jël troisième kon ça veut dire xam naa élection. xam nga yoon bi xam naa yoon bi. Mhm. léegi nag mais damay ñaan incha allah en 2022 su mu nee nekk ñu nekk benn bokk ndey bokk baay parce que intercommune parce que c'est très important dan fa nekk ay parti yoo xam ne dañu fa am kattan am fa doole PDS dafa am mbooloo euh, Pastef dafa am mbooloo. ah ak mouvement taxaw suñu gox dafa am bool mbooloo muy le président Moussa Niang donc nag ñun ñu nekk benn bokk ndey bokk baay liggéey moo gën mais instant bi pour dire vrai ni ma fonkee ñi nga xamante ñoom laa nekkal sañu ma di soto proclamer sama candidature mais nag mhm. sama plateforme bi mouvement bi moo ngi dox ba léegi mhm. ñoo ngi seeti nit ñi bu ma waa Benno Bokk Yaakaar ooyee ma dem uyu leen mais maa ngi dem si programme yi maa ngi dem si xew yi maa ngi def ay réunion sama mouvement bi moom mhm. du arrêté yi waa ak yow moor Ba moom mooy maire bi tey bu ko Macky Sall joxoñaatee ne ko yaay tête de liste bi ndax di ko ko accompagner. non Mor Ba nu Mor Ba fi mu toll dëkkatul jaxaay Mor Ba léegi tuxu na moor Ba léegi ñàkk rob la bëgg ñàkk rob daaru ci bu la bokk. moor Ba mënatul nekk candidat commune bu jaxaay parce que Mor Ba yeewootul jaxaay bi ñu defee découpage yoon ko ne yow ñàkk rob yow Tivaouane Peulh nga bokk. Mhm. kon Mor il est kon yaa fa sës. non du man rek maa fa sës am na ñeneen sama ma yenn morom ji fa nekk ah parce nit da ngay am ànd transparence mhm. bu ma nee man maa fa sës loolu affaire égoïsme la am nañ yeneen mouvement yu fa nekk di liggéey ni may liggéey mhm. mais ku dem wàcc si base bi def sa micro trottoir di nga xam ne am na loo xam ne liggéey naa ko lu mhm. man nag am na sama yenn morom yu fa nekk di liggéey mhm. kon nag waa Benno Bokk ñoo ngi liggéey def na mobilisation bu am solo mhm. euh, euh, jeudi bi passé bi ñuy accueillir son excellence le président Macky Sall à Kër Massa fait Malika Mbëbës waaw donc ça veut dire ñëpp ñoo ngi liggéey mais say ambition dañul ci commune bi quand même mukk sama ambition dañ si commune laa dëkk jaxaay laa am commune de jaxaay cité gendarmerie la am noo bëgg a def jaxaay non man samay vision si jaxaay mais dafa yaatu. parce que dama bëgg non seulement bëgg naa jaxaay bokk si communes yi gën a am Pastef am responsabilité si dans le nouveau département de Kër Massar. loolu samay ambition la si jaxaay. benn bi mooy bëgg naa fu ñuy daxee ay communes de référence ñu tuddee si commune de jaxaay. c' très important te loolu li ñu ko mën a may mooy. man sama vision mooy d' abord partenariat public privé. dafa am benn maire bu nekkoon Sokone bu defoon benn proposition bu am solo boo xamante ne. Mhm. su ma président doon déglu. Petit Guèye Petit Guèye. Mhm. c'est très important. Mhm. chaque commune nga octroyé ko un milliard. ba pare le services de les codes de contrôle di cont di di contrôle gestion bi waaye commune boo jox un milliard. saa na si tabax ay école na si defar ay foyer des femmes dina si joxe ay formation na si ja accompagner xale yi na si defar ay tali loolu na si mën a defar lu bëree bëri pour que commune boobu mën commune nga ko benn un milliard. loolu c'est très simple idée boobu je l'apprécie beaucoup dama ko bëgg mhm. voilà donc nag mhm. bëgg neen man surtout ambition bi yow am jaxaay un booy dugg si jaxaay mhm. ñun dañu am boulevard boo xamante ne bu ñu ko defaroon tey dafay mel ni Paris boulevard boo xam ne trente la mooy entre principale commune de jaxaay loolu ambition yi ma si am suñ ko liggéeyoon kon beneen affaire la nekk tey boo xoolee même éclairage public bi solaire bi amuñ ko ah bon amuñu ko jaxaay des fois day faral di lëndëm jaxaay non dañuy gërëm le commissaire Sène le commissaire Ndong su dul la commissaire donc compte agression bi dafay métti foofu parce que dëkk bi dafa lëndëm éclairage public zéro à la cité bi nga xamante ñooy assurer des fois sécurité le président de la république foofu noonu ñoom bu ñu demee liggéey ji seen famille du nekk en sécurité. waaw ah, Boubacar Traoré xanaa maire bi moom deful dara ci commune ba. maire bi daal saa yi nee la maire bi li mu ndekkee boo ko laajee di fàtte na ko. <laughs> saa yow li ngay wax nii garaaw na day fàtte mag li mu ndekkee midi li mu ndekkee huit heures boo ko laajee midi fàtte na ko amul ambition amul vision. ah ba ba bokkul ci ñi nga xam ni dañ naan ambition jam ñaajo la yam déedéet kii kii kii ambition jógewu kii ambition weesul tool yi terrassement tool yi la ambition yam vision ci terrassement yi la jëm ambition weesul biroom soo toogee moom nag mun na la dig loo loo xamante ne at nag. te yow li nga fiy joxee ay proposition comme ay idée est-ce que tey waruñu woon mun a xaar tey Boubacar Traoré idée yi nga xam ni nag am na ko mu dem waxtaan ci ak euh, mairie bi comme yow tey développement commune bu Jaxaay parcelle moom moo la tax a jug est-ce que tey mënoo woon dem tey waxtaan ak ñoom ci loolu. mais def naa ko au départ man damaa bokkoon si ñi nga xamante ne samay conseil municipal jox ko mu falu kon kooku bañoo ko mais gis nga monsieur Dramé. Mm-hmm. nit fu mu lay fonkee mooy sa kàddu mhm. man def neen man def chef de cabinet à la mairie de Jaxaay un mois ma démissionné parce que dama remarqué ne waa ji jugul pour liggéey quoi ah bon non non dama ko remarqué te képp koo xamante ne nii dëgg na li may wax war na xam ne man li may wax dëgg la dama lay wax commune de Jaxaay ce qui se passe mhm. xam nga dañuy wax souvent ne secrétaire municipal moo war a nekk point mairie ba mhm. xam nga monsieur le maire kan la def secrétaire bi ka nekkoon l' agent comptable ba la jël def ko bu ko bu ko defee la kooku nekk double fonction l' agent comptable ba mooy nekk sa muré mooy cendee la nekk noonu la mooy kii gère affaire comptabilité bi mhm. finance moom leen jël def ko en même temps secrétaire municipal dëkk bi ne kakak taxaw toujours que nag dama lay wax benn affaire jàng finance da nga koy jox mu gérer finance mhm. ki jàng administration da koy jox mu gérer l' administration administration commune de Jaxaay dafa ne kàkk te taxaw mhm. benn ngoog benn bi mooy dama la benn affaire man j'ai des visions à la commune de Jaxaay loolu waraloon mu utoon fii un partenaire boo xamante dañ fi mayoon le ministère de la santé ñu mayoon fi 3000 moustiquaires. Mm-hmm. premier financement bi dugg commune de Jaxaay en 2014 maa fi njëkk a joxe 2 millions jox ko femmes yi groupement femme bu nekk ma jox la 200000 francs ne amul intérêt pour ngeen liggéey premier financement bi dugg commune de Jaxaay man la. tey jii fi mu taxaw tey tali heure bu taayoon ndox man maa yëkkati sama moto pompe yóbbu ko fa yëkkati oh jeunesse bi ñu ñëw topp ma ñu jënd suñu carburant di manque ndox mi pour nit ñi di mun a jàll. tey am na lamp yoo xamante éclairage yoo xam ne buñ paane man la ñuy sollicité ma jëndaleen appareil bi nga xamante moo koy tax muy tàkk 19 heures di fay 7 heures ma génne samay moyens kon j'ai énormément fait pour commune de Jaxaay j'ai beaucoup fait pour la commune de Jaxaay mm-hmm. mais man ça veut dire liggéey moo ma ñor ay tendance nii xaj ko moo tax may la ëllëg ki war a nekk ku munti nekk miiru jaxa yàlla tudd ko mm-hmm. bu fekkee man la baax na bu dee keneen la aussi dinaa la jàppale ñu ànd liggéey parce que développement jaxaay laa am fii laa am samay rakk fii leen am samay doom fi leen am suñuy papa ak suñu yaay fi leen dëkk kon liggéey rek moo ñu ñor ñun dara ñor ñu dul liggéey mhm. waaw donc euh, ci euh, wàllu woowu kon euh, ñu ngi ci ba tey di taaxirlu ndax élection yi atum deux mille vingt et la vingt deux ci janvier bi waaye ba tey nii mbir yi leeragul de dafa mel ni yéen seen waaj yi wala yéen seen kan dafa mel ni dañoo xaw a tiit de ci opposition bi de ba tey ñoom waaw dañuy dem élection ba tey. dara dara leeragul. non yow yow Sadio di ma dégg nga wax ni euh, si processus électoral bi nga may wax ni bien sûr mais processus électoral di di di leen ko démarrer nii parce que man lire naa benn circulaire bu ñu les les les si les les préfets. Mhm. sous-préfets. juste weeru bi pour ñu choisir les mhm. présidents des commissions. Mhm. ça veut dire que processus électoral bi dina démarrer à partir de mois de début. Euh, juillet juillet bi. no parti bi pare na. c'est aussi pare ngeen yéen non parti bi pare na la coalition Benno Bokk Yaakaar pare na fekk si le président Idrissa Seck ça veut dire que ñun amatuñ benn <laughs> a yàq liggéey ñu liggéey yëpp ne dañoo sàccaat élection de gauche à droite est-ce que Idrissa Seck tekkati na dara léegi si aussi Idrissa Seck mais man si ki may retardé aussi ki ngay xamante mooy wax concentré moom mooy le gardien de la constitution son excellence de président Macky Sall su dee dimanche moo ngi noppalu dégluwuma xamal ne aussi ay collaborateurs ñoo ngi may déglu parce que man du ma gan si biir parti bi depuis 2009 je suis dans le parti APR. du ma waxantu mën lu ma gëm laay wax lu ma gëmul gëwuma ko. Mhm. mais commune de Jaxaay dafa mérité ñu bàyyi ko loxo. te président Macky Sall bés bu ñëwaatee Jaxaay bés bu ko ñëwee Jaxaay dina xam ne Jaxaay mi mérité nañu bàyyi ko loxo lool lool lool. ndax am na lu ñu ci bëri loo xam ne def nga ko te dañ ko war a delloo njukkal. dañ ko non seulement dañ ko war a delloo njukkal mais daf ñoo war a tegaat loxo. Mhm. mais est-ce que warul continuer itam ci li nga xam ni moom moo jëm ci loo nga xam ni def na ko parce que tey lu am solo la itam euh, njiitu réew moom mooy defar projet yi mais dafa ko warul continuer parce que tamit njiitu réew lañ wax. waaw c'est vrai que projet Jaxaay am na si peut-être ay problème yu ndaw. parce que te te ngaa wax problème yu mag rek ñu régler ko benn yoon moo gën. waaw non mais xam nga le président Macky Sall moom mbir lu mu diis diis da koy jéem a oyofal ñu trouver solution. Mhm. xëy na li nga xamante mun na ko eggale jaxaay mooy euh, sur les maisons de jaxaay. dafa mhm. laaj une continuité. Mhm. mooy 3000 logements yi. waaw 3000 logements yi moom pour dire vrai. am na loo xamante ni président il n'était pas au courant. te xam naa bu ko yëgee na jël ay décisions yu am solo. mooy kër yi nekk jaxaay ñu eggali ko parce que suñ ko eggalu dañuy ñàkk insécurité la ñuy am parce que da xool euh, guddi gi day lëndëm. nit mun na def naka su noonu daw daw daw dem làqatu ji foofu moo tax le commissaire Sène ak ay élé commissaire Ndong ak ay élément am mhm. ñoo ngi liggéey lu am solo ak le ak ak euh, Assane mhm. donc ñu ñaan la président ak le ministère de l'urbanisme mhm. Abdoulaye Sow nen eggale foofu bu ñu ko eggalee jox euh, ñi fi dëkk ñu jox seen borom ñu dëkk et puis donc est-ce que balaa ñu doon def euh, logement sociaux yi nga xam ñu ngi koy def waratuloon xalaatuñu woon eggali loolu mu jeex non ça montre nettement que le président il n'était xamutoon peut-être am na loo xamante waxuñ ko ko àjaxaay parce que buñ ko ko waxoon le président cent mille logements yi ñu jël décision pour tabax ko dina ne ah cent yi kat nañ si def moins de trois cent et quelques ñu jël eggali ko parce que nag projet Abdoulaye Wade la woon hmm. te buñ fàtte ne président projet boobu ñëwaat na ba tabax fi deux mille logements cité Tawfekh hmm. te cité Tawfekh ñëpp dëkk neen foofu rafet na ñëpp dëkk neen kon jaxaay rek moo si am yi quelques yu ñu ñaan le président hmm. su am na solution ñu defar ko ñu ñaan aussi le ministre des collectivités territoriales. Mhm. dafa jot ñun joxe ñu tabax suñu commune. ah xanaa nekkoo leen di ko tabax. non non tabax je veux tabax suñu mairie bopp. Mhm. parce que dañu nekk en location. dafa jot ñu am suñu loolu kay mairie bi moo ko war a plaider. waaw waaw mais mais comme mairie bi moom mais moor bi moor na. moor bi moom moor na. Mhm. léegi ñun ñooy population ñooy jëlal les choses suñu bopp. ñoo koy jëlal suñu bopp. parce que. fi may waxee le ministre des collectivités territoriales ministre Oumar Gueye. ma mhm. koy nuyu bu baax di ko gërëm di ko sargal parce que suma xarit la. Mhm. daa mel ni yow da koy jàppal tànk de ndax ni nga àndee ci affaire yi. no man man du ma man xam nga dama département de Kër Massar bu bees bi nee naa le ministre Oumar Gueye mu ne man naa ma ne ko man koo ma newul àndal ak diw mii si département de Kër Massar du ma ànd ak moom. parce que man bu may ànd ak ni damay fidèle ba keroog muy jeex nee naa ko man yow laa àndal département de Kër Massar je suis neutre ku ma ko. mais ki nga xamante ne fas yéen naa xar sama tànk tubéy jàppale ko dëgg dëgg dëgg yaa ma koy recommandé. moom Omar Gueye moom Omar parce que man damay fidèle ci amitié quoi waaw si foofu aussi ni ma ko lancé un appel la lancé un appel ministre Abdoulaye Diouf Sarr parce que nag bakkan bu ñoom dund ñoom dee suñu centre de santé bi dafa mérité ñu jàpp ñu. ak mbirum ambulance itam lu am solo la. mais ambulance nee la commune boo jaxaay li gën garaaw mu xam nga mooy lan. ambulance nekkoon dafa demoon ba panne parce que dañ ne mairie bi duñ jënd carburant. ah yéen moom xanaa maire bi li ngeen koy. voté budget xoolal déglu ma mhm. bu Rufisque. mooy hôpital géej nangu jëlaat ambulance bi récupéré ko. ñu koy utiliser hôpital bu géej. il a ko ñu def benn waxtaan si benn panel pour que mu ambulance bi ñëwaat maire bi nangoo jël responsabilité dépanner ambulance di ko jël carburant léegi kay commune bu jaxaay te ambulance moo ngay fanaanu ñàkku rab Tiwaan Pël léegi tey jii nii ñun jaxaay bu nu amoon urgence billaahi dañuy dem luye ji clando parce que urgence wu tey jii boo naree xaar ambulance buy jógee yoon bee te yoon boobu baaxul nar a ñëw nit kooku baadu faatu léegi au moment où am na benn ambulance boo xamante démonté nañ quatre pneus yo def ko quatre appui dañu am benn partenaire bu ñu may ambulance bu bees tàq bu jógee bitim réew France ñu bind si ambulance ñu bind si jaxaay deux le maire jël ambulance ba yóbbu ko këram gaare ko démonté pneu ya ne ambulance boobu moom lay téye xaar ko ba élection yi jege si mu inauguré ko poste de sant bi nekk cité gendarmerie waaye yaa xeeti gaan balaa nga ne naam nekk fa. te moom defu ko. déedéet xa mais est-ce que dina ko fekkee ba koy def ambulance moo war a nekk lu war a opérationnel daw est-ce que yow yaa ngi ne dama koy téye pour di xaar élection yi ñëw eh, moo tax élection njoy ko njoy ko fi mu ko njoyee mooy moor moor na bokkatu fa. bokkatu fa waaw léegi bind nga bind nga bataaxal jox ko ko. non doxuma la bataaxal xam ne loolu dama la wax ni loolu population bi nga xam ne may wax ambulance baa ngi sama téléphone. ambulance bi gisatuñ ko te ambulance population commune de Jaxaay moo ko moom dafa ñu war a delloo suñu moo tax dañuy lancer un appel le sous-préfet ñu nekkuñu si moomeel moom miiru Jaxaay du moomeelu Mor Sarba du moomeelu kenn suñu ambulance dañu ko war a delloo. normalement Jaxaay kon délégation spéciale la war a dem. mais ñun mais foofu laay waxee parce que nag. je pense que délégation spéciale dafa war a ñëw parce que mercredi passé. Mmh. le conseil des ministres le président Macky Sall. Mm-hmm. nommé le préfet du département de Kër Massar. Okay. et en même temps nommé na les sous-préfets des des arrondissements. Mm-hmm. kon nag délégation spéciale moo war a ñëw saytu xool moome li askan wi fan la toll. parce que comme waa ji xam na ne dem bu ñu defal attention tuuti dina jàq dëkk bi da koy caqat caqatee. ah Boubacar Traoré yow li ngay wax garaaw na de. non li may man li may wax bu dee li may wax amul rek bu xëyee suba na ma porté plainte du ma waxantu li may ay fait yu am la si biir commune ba ay yu am si biir commune ba ambila amuñu ambulance. kon jaxaay dañ ko war a tëggaat. non équipe bi war a ñëw. daa war a tëggaat tëgg bu bees taq mhm. gars yi xam benn affaire. Mhm. mooy la amoon sa miir ba dootul amati de. transparence moo fay non ay va et venir ay teg say mat dur say matu nii dem jël fii dem fay récupérer benn autorisation de construire wala def yooyu dootul amati miir bu jaxay de yooyu c'est fini c'est abanaan parce que équipe ba fay ñëw équipe bu ko tax yoon la politique ko ko bëgg a dundee di perds ton temps. ok ok daanaka waxtu bi euh, mu ngi bëgg a jeex euh, li si dese si ay minutes bëriwul ñu bàyyi la rek nga tàggatoo xam naa ni moom luñ fi wax moom tey moom. am na solo ci commune bu jax xamuñu ci woon lu ci bari tey xamal nga ñu commune bi wax nga ñu ci lu bari mais ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm bu baax ñu bàyyi la rek euh, ci kàddu gu mujj nga daal di joxe sa kàddu gu mujj. voilà merci monsieur Dramé euh, kontaan naa bu baax a baax si émission bi euh, di wax aussi auditeurs yu auditrice bu réew mi FM. 97 point 5. Mhm. lu fi jub rek yàlla borom subhaanahu wa lu fi dëng sama jëmm ji la. maa ngi leen di jéggalu ngeen baal ñu te di lancer un appel di tëj foofu le président Macky Sall. Mhm. lii dama koy lancer dafa nekk sama biir xol. Mhm. président Macky Sall bu mu fàtte ay démbam. non ñu ñoo fi nekkoon bi démb nekkutee dara ñu ñoo fi nekkoon depuis 2009 ñu nekk ak le président Macky Sall nañu bàyyi xel. Mhm. lu rek leen mën. nañu bàyyi xel. ñoo ngi bàyyi lépp si loxo yàlla incha allah. ok am na solo ji ngi koy sant di ko gërëm mu nekkoon Boubacar Traoré rek nekk rek njiital mouvement. Euh, des jeunes pour l'émergence de la commune de Jaxaay parcelle ñu amoon mbégte loolu dalal ko tey ci émission gox bi mbokk yi ñu ngi leen jox dig daje dimanche ak beneen invité fii ci émission gox bi.